et si notre justice était indépendante uh, xam nga la justice dañuy wax ne que dañ koy rendre au nom du peuple du peuple sénégalais et donc mën nañ jàpp ne que justice mandataire la mm-hmm. et que le mandat c'est le peuple mm-hmm. et que su justice fonctionnait comme ni ko peuple bi bëggee day feeñ mhm. ci ci peuple bi ci ni ñuy wax débat yeeg mhm. ak yooyu mhm. su fekkee ne également ni mu war a fonctionner walla attentes yi peuple bi am ci moom gisuñu ko day feeñ ci débat yi ak wax yi mais léegi yow tate pulu indépendance justice wala manque d' de la justice parce que soo dégloo nit ñi. Mhm. di nga xam ne que le peuple ne pas satisfait de sa justice. Mhm. Sénégal. waaw mhm. ah, xëy na defuñu ay statistiques pour voir mais soo déggee en général nit ñi dañuy coller la justice au au, au pouvoir actuel. justice su Macky Sall la. Ah, waaw li ko waral nag mooy. xam nga justice eh, domaine yi ni muy intervenir day bëri waaw mm-hmm. ah, civil mm-hmm. commercial tout mm-hmm. domaine yi ci ëpp mënuñu reprocher à justice son son manque d'indépendance parce que boobu conflit day day day concerné ñaari citoyen muy civil bi waaw ñu ñëw ci kanamam mu àtte leen boobu mënuñoo wax ne la justice n'est pas indépendante même si même si sax mën nañoo xool est-ce que par rapport au pouvoir d'argent mhm. surtout parce que loolu kay naa ci ñëw moom <laughs> loolu kay naa ci ñëw moom pouvoir d'argent naa ci ñëw de au pouvoir maraboutique est-ce que justice am na une réelle indépendance mais fi mu gën a grave mooy su citoyen su amee benn citoyen bu am ay jafe-jafe avec l'État et le pouvoir un politique pour leeral politique voilà bu am ay jafe-jafe ak État euh, dossier yooyu bëriwuñu au niveau de la justice soo ko calculer au appen peine ay cinq pour cent dix pour cent du volume d'affaires mmh. mais dossiers yooyu mooy les dossiers hyper sensibles mmh. xam ne foofu la ñu xaar justice mu wone réellement son indépendance or li ñu seetlu mooy que dossier yooyu sa sa dossier sa minimum sa minima de dossier la justice ne souvent pas au rendez or foofu la ko nit ñuy xaar parce que ñaari ñaari ñaari citoyen yu am problème dem justice intéressé lu kenn d'ailleurs même la presse doo dégg sax ñuy wax loolu et pourtant la pourtant dans les affaires civiles et commerciales il arrive que ñu condamner l'État même du Sénégal mm-hmm. ah waaw day arrivé sévèrement ñu condamner l'État mm-hmm. mais loolu la presse du ko sax tudd mm-hmm. mais ce sont des dossiers politiques yooyu mooy intéressé nit ñi et foofu la ñu xaar la ñuy xaar justice et malheureusement comme ni ma ko waxee léegi euh, foofu rarement les justices dañoo orienté et donc ci base boobu la ñuy critiquer à tort à tort ou à raison. à raison les critiques à tort ou à raison à raison à mhm. raison. à raison parce que xam nga dañu ne justice mooy c'est le dernier rempart. oui et que citoyen bi su amee problème ak état justice dafa war a nekk à équidistance. donc mhm. mhm. tranché selon mais dañuy gis ne. souvent pas ñëpp ah. parce que man je dis que am na ay magistrats yu indépendants. c'est-à-dire magistrats yu mais le système lui-même n'est pas indépendant.